Thank you. Ibrahima Sibéeru Faye. ma góor comme que nag yëfu yëfu artiste la. dëgg la te DJ Grégoire mais. muy xale bu ji jigéen bi di dugg si damay am yar day bàyyi ko mu dugal xale bi ma def ba xolam sedd ba. maa la ko wax maa la ko wax. gërëm guraar dafa demee noonu. kooku kon Bas Cung bu yegsee. ànd ak Sibéeru Faye maa ngi seen ma góor. ma góor ah taalibe Serigne Babacar Sy Bas. ndeysaan Bas rek na ndax ku ne xam na ni jot amul te temps dafa xam. mbokk mi ak si biiru mbokk mi ak si biiru xamal li day jeex. day jeex micro yi day jeex. moom mu nekk ku baax moom suma xarit la man du may ngénte. barke Serigne Touba. yaa ngi dafa yëkkati nag bu rëy indil ma ko suma kër. loolu léegi nag. ule yaayam ma ne. ma ne yàqu yaay Baba Diagne mama taari Mbay Diagne mbir yàqu yaay Baba Diagne nooy daa sëriñ dina kaaray mama li mu ma Ndakaaru tuku tuku Qui est la marraine, bien sûr, euh, du mariage. On aperçoit aussi l'arrivée de Latte. Latte était noire. Machallah. Yes. Latte est Number 6. Voilà. Donc, merci de ça. On comprend. Donc, Mia, bienvenue à toi. C'est un plaisir de te voir toute charmante, toute jolie. Beaucoup plus jolie que beaucoup. Mention spéciale à toi. Mention spéciale à tous les danseurs, danseuses aussi de Mia. Mais mais tay de. Oumou Mia moom. waa xarit lii lan la nii. eh waay Ndaw Samba. ayca mu ngi noonu donc am na lu ñu def léegi. dama gis ay humoriste fii. waaw dama gis ay artistes. yoo xamante ne dans le milieu des séries bien sûr ñu ngi a des chanteurs il y a avant l'arrivée de de nos bien sûr on va appeler.

asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp teew fii tey c'est vraiment un réel plaisir de venir partager bi ngeen ñëwee partager ce bon moment avec euh, notre sœur Dieyna kontaan nañu vraiment parce que bés bi benn yoon lay nekk ci àddina te ñu ngi koy souhaiter bonne chance di ko wax heureux ménage yal na leen yàlla la fa cat dolli leen sutura boole ko moom jëkkëram ba kenn du xaj seen diggante. amiin maa ngi tamit sama maman yi ñi ma fekk maman Ndiolé maa ngi di nuyu bu baax di nuyu sama grande sœur Mia maa koy nuyu bu baax moom tamit ak OMG ñëpp ñi fi nekk maa ngi leen nuyu jërëjëf. merci beaucoup merci Narté merci jolie robe elle est magnifique elle est sublime ce soir et sans plus tarder. Wow. ok Djiba sama manager bu yow lay seet. bàyyi xale yi ñu dalal. gis nga Mamy Cobra nu mu lay xoolee faa na la instant yi. sama doom la. macha allah. sama doom la moom engagé gis naa leen. mais tey kontaan naa bu baax maa ngi ñaanal xale yi fi toog yëpp balaa bis bi yéen jël si yan nañu leen maye. amiin waay. ci barke Seydina Mohamed. mais tey dafa am sama rakk joo xam ne moo ma tax a jóg ni yaa gisee. Hmm. dama bëgg ngeen tàccu ma ko bu baax a baax a baax xam nga li tax. maanaam personnalité dignité fonk sa liggéey kon Dieyna bu amee bés mi nga màggale gi ñu ne mia nga def transmat déplacement bàyyi say tukki bàyyi sa lépp ne sama rakk ji rekk ma dem woo nag njole taal jamaanoon ne ko yaa may gunge ànd ak sama ji bala mañ sa bi tëgg bi dawul aar nga xam ne taxawaalu woowu wëndeelu woowu foo dem dañ na faa woowu waaye nag nga jàpp sarak yi rek man nag mi yaa yaa ma bëgg waaye man nii maa war a woo benn xale bu wayaa wayaa ànduma benn xale bu ñàkk man kon boo wuy sama doom ji ne ma yaa njole ñëwal ñu dem duma def lu dul ñëw rek jëmmal bés bi bu bas rëkkee ba ci kanam ñu jàkkaarloo xale yi fi ne ne leen ah, àggaacu rek réew tàcc leen loolu waay s'il vous plaît. You know what I'm talking about? You know what I'm saying? ah gis nga. My name is Black Demba. ah ah ayca. merci c'était Mama Ndiol. Dane Mia. oui. dama bëgg nga way ndax sama xol sedd na ba pare. macha allah. kon yow defe naa ne sa digganteeg Mia. waaw du li muy indi. da nga ko bëgg. waaye bëgg nga nag ko baax. ku ñëwee ci yow doole tey. bala moo way da ngay bàyyi mu jox la sa kado ba pare. su paree way. gaa yi toll def leneen ndaxte sama doom gis naa ko fi ma nuyu ñëpp nuyu ma sama doom yàlla nga eggaleeg sa sago ku joxewul cër doo am cër danga ma jox cër moo tax nga jël micro di ma nuyu yal na la yàlla defal jàmm léegi nag dafa am lu xew Dieyna daa def lu rëy lan la def dafa am lu mu def ak i kër gay toj Mia jërëjëf sama rakk ji ci tey bu nu bésub jey naa bu ñëwee biin sama rakk ji yàlla na nga gudd fan xam nga lu tax ma ñaan ko hmm. dama ñëw sa studio may sama am lu ma soxla nga ne ma tijji naa buntu yëpp bu la neexee sax bul fay dëgg la joxe di yendoog man di fanaanoog man te bés boo gis bés lay xaar boo ma fayloo woon nga fay def parce que da ngeen di def defe naa ne man maa leen ci jiitu ca ñaawuma ci xarit bi benn yoon déedéet na nga yeggale sa sago jëy naa da nga muñul sa jëkkër te fonk ko ca góor góorgóorlu te xam ne ndaanaan luy sëy jafe na metti na di dégg lu ne di gis lu ne waaye na nga góorgóorlu bu baax xam ne dafa bari jom lool hmm. <laughs> bi tukki bi tukki nga waaye bi ñibbi ñëw nga borom laaj ma koy waaye nag laaj jole waaye nag bi cër joxe bi cër jotee rek am nga ko ci réew xam nga loo am ci réew mi jey naa ñu ne ko kuy sa idol mu ne miyaa gisee kuy sa idol mu ne miyaa rek la dañu lay ndeyale mbaa ñu magale la mu ne cër bi dama koy jox mi yaa gisee waaye jofoo ko fexe nga ba fonk sa ndey fexe nga ba am respect ci nit ñi waaye fexe nga nag ba koor romb jox ko ko cër ci li nga rafet day niroog baax noo tudd nga mer foo dëkk nga mer mer gu bari ñàkk ku am dégg saa nee na boo fekkee ñaar ñuy xeex seetal ki ci gën a ñaaw nga toj na ba tax xam ne moo tooñ xam nga lu tax na xol ba mel noonu la kanam nga mel waaye gise yow koo nopp moom waaye nag kooree mu kontaan nga ñëw nag yëg la woo ko kenn danga ne jone taal sama mag ji rek laay àndal ndax moom a saf waaye maa la gën a bëgg nañu delloo la woon tawoon nga ànd ak ami seneen mu baax mi nga xam ne ci farata rek lay jóg umu sunu ménagère bi nga xam ne yàqaloo dara mi yaa gisee bu la neexoon nga di ko defal prestation deux cent cinquante mbaa nga naan coppit ci bii taf ci bii bii na ko rajax waaye yaa ko jàppale te nag kaay ma wax la ñaar ménagère mën naa sarax artiste. waaye saraxe ko fi mu war a dem rek lay dem li mu war a def rek lay def nga fonk liggéeyam teg ko place jëy naa mais yaa nee na non du mën a doy dëgg la xam nga lu tax dañu jël cër jox mi yaa te coful bés bi. luy doy amu fi ku yàkkamti demal tëddi. dëgg la damay doxal ba mu neex te yi taxaw yor micro bi tant que joxuma leen micro bi duñu ko nangu kon ku yóbbu rek nañu nañu nañu def la paix rek def ba mu lii ma yor nag ma jëm si ci Dieyna jox ma. te jël ma ko. tëlbatiquement mi yaa gisee sama rakk ji dafa ñëw li ma ne la léegi am nga ñaanu yaay doo torox sa baay laa fóotal doo tilim Babacar waaw lii ensemble or la Paris mi yaa gisee moo ko jox rakkam Ceyla mi nga xam ne artiste yi bari waaye da nga ne yaa rek laa laa laa taamu Jeyna kado baa ngi ni Mia jox ko ko gars yi jël leen photo ana sama rakk sama rakk journaliste yi xale yu baax yi nga xam ne ñëw leen jël leen jël leen toog leen ngeen jël. toog leen ku jug jéem. dama leen di neexalaat ah, moo tax ma jël leen noonu xaaral xaaral ñu xool leen journaliste yi jël leen ak a ñoo baax xale yu yaru lañ xale yu bari maanaa ñu ngi nii toog. wala ñoo xëy di ma bindal naa ñu ngi nii dañuy bind de dañuy xëy naan doole ay ca jox ma lii coffre la nee na Jeyla eh waay man de Jeynaa rek sama doom ji sama nuroo waale nee na biir bu la mayee yaayam may ko sa yaay tubaarkàlla yëkkatil ba coffre bi ci kaw. coffre bi nag ku ne xam ne fi mu jugee fan la jugee ami Chanel mu baax mi nga xam ne lu mu indi ci réew mi griffe la. dëgg la diggante Amérique ak Canada la koy la koy jëmee ba mu saf. dëgg la indi ko ci biir réew mi te dara ñaawul. déedéet moo ko jox coffre bi jàppal mu ñëw andi. ñaar fukki junni. cent mille. ñeent fukki junni. ñu deux cent mille. juróom benn fukki junni. trois cent mille ci mi yaa gisee. quatre cent mille téeméeri junni cinq cent mille ci bi yaa gisee six cent mille six ci bi ci borom looy laaj huit cent mille huit cent mille ci doom ji teram ndeyam et eh, waa mbedd mi est-ce que yéen a wooy waa mbedd lii neuf cent mille. neuf cent mille. un million ci sama waa ji un million. lay bakk leen un million ci sunu waa ji un million. Assane Seck un million ci sunu waa ji un million. lay bakk leen un million ci sunu waa ji un million. Babacar. Ah! gis nga yaa gis bi suma nit mbokk mi ak Sibéru Faye. ma góor comme que nag yëfu yëfu artiste la. dëgg la te njëkk rek waar ne muy xale bu ci jigéen bi di dugg si damay arrière ne bàyyi ko mu dugal xale bi man def ma xolam seen ba maa la ko wax maa la ko wax. gerte daal dafa demee noonu. kooku gerte guraar. kon costume bu yegsee. ànd ak Sibéru Faye. waa fii seen ma góor. ma góor ah taal bi seen Babacar Si Bass. parce que xam na ni jot amul te temps dafa xam. bokk ñaay si biir bokk ñaay si biir xam na li day jeex. day jeex micro day jeex. moom mu nekk ku baax. moom suma xarit la man du may génte. barki Serigne Touba. yaa ngi koy dafa nag bu rëy gi dimb ko suma kër. loolu lay def. bu yaay Baba Diagne Mama Tari Mbaye Diagne ça c'était l'arrivée de la mariée. Rejoignez vos places s'il vous plaît, dañu ko delluwaat seen place. Donc alors accueillir le marié. Merci de rejoindre vos places. Voilà, le marié est déjà là. waaw dañ ko xaar wala ñu def ñu ñu soog ko. on a ñëpp tuus ba pare waaw na ñëpp toog ba pare. à être là pour témoigner son amour à l'égard de ce Alors, et parlant de Mia Guissé. Oui. xam nga dafa dafa dafa nekk koo xamante ni ci bés bi nee naa la bu ci caaya bu réy la ci ndax jëmm ji toog da koo magalee et comme da koo magalee donc moom ci biir xolam nee mi ngi koy gërëm mi ngi koy gërëm ba fu gërëm yam donc Mia Dieyna te félicite te remercie du fond du cœur Bril te félicite te remercie du fond du cœur merci pour le déplacement merci d'avoir répondu présente Alors, je vous demande de l'applaudir très très très très fort. L'international. La star parmi La star parmi Merci pour tout. Merci d'avoir soutenu ta petite sœur. OK. on est fiers. On est très content toi. Alors. Merci Grégoire. Alors, Jélane, qui demande, c'est elle qui commande, c'est elle la star. Uh-huh. léegi tey naa dafa wax lu rëy uh-huh. danee miyaa dama bëgg nga way ndax sama xol sedd na ba pare masha allah kon yow defe naa ne sa digganteeg miyaa waaw du indi da ko bëgg waaye bëgg nga nag ku baax ku ñëwee ci yow doole tey bala moo woy da bàyyi mu jox la sa kado ba pare su paree woy gaa yi tourné def leneen ndaxte sama doom gis naa ko fi mu nuyu ñëpp nuyu ma sama doom yàlla nga eggaleeg sa sangoom. dëgg ku joxewul cër doo am cër. déedéet looy laaj bu ñu da nga ma jox cër moo tax nga jël micro di ma nuyu. yal la yàlla defal jàmm. léegi nag. Ah. dafa am lu xew. lan mooy ah. daa def lu rëy. lan la def. dafa am lu mu def ak ci kër gay toj. Mia. jërëjëf sama rakk ji tey bu nu bésub jey naa bu ñëwee birim sama rakk ji yàlla nga gudd fan xam nga lu tax ma ñaan ko dama ñëw sa studio may sama am lu ma soxla nga ne ma tijji naa buntu yëpp bu la neexee sax di yendoog man di fanaanoog man te bés boo gis bés lay xaar boo ma fayloo woon ma fay dem parce que li ngeen di def defe naa ne man maa ci jiitu ca ñaawuma ci xare bi benn yoon kon yàlla na nga yeggale ak sa sago jëy naa da nga muñal sa jëkkër te fonk ko ca góorgóorlu te xam ne ndaanaan luy sëy jafe na metti na di nga dégg lu ne di gis lu ne waaye da nga góorgóorlu bu baax lenn sama gi nga xam ne dafa bari jom lool. mais hmm. <laughs> bi tukki bi jotee tukki nga waaye bi ñibbi si jotee ñëw nga. borom looy laaj ma koy. waaye nag laaj jole. waaye nag bi cër joxe bi cër jotee rek am nga ko ci réew. xam nga loo am ci réew. jëy naa ñu ne ko kuy sa idol mu ne Mia Guissé kuy sa idol mu ne Mia rek la bëgg dañu lay nayale mbaa ñu magale la mu ne cër bi dama koy jox Mia Guissé. waaye jëfoo ko fexe nga ba fonk sa ndey fexe nga ba am respect ci nit ñi waaye fexe nga nag ba koo romb jox ko ko cër ci li nga doon dëgg la rafet day niroog baax noo tudd nga mer foo dëkk nga mer mer ko bari ñàkk la ku am dëkk nee na boo fekkee ñaar ñuy xeex seetal ki ci gën a ñaaw nga toj na ba te xam ne moo tooñ Habib Guissé yow koor nag mun waaye nag kooree mu kontaan nga ñëw nag yëg la woo ko kenn danga nañ ko taal sama mag rek laay àndal ndax moom a saf waaye maa la gën a bëgg nañu delloo la woon fawoo nga ànd ak ami sareel mu baax mi nga xam ne ci farata rek lay dugg umu suñu ménagère bi nga xam ne yàqaloo dara bi yaa gis mm-hmm. bu la neexoon nga di ko defal prestation deux cent cinquante mbaa nga naan coppil ci biir taf ci biir bii na ko rajax waaye yaa ko jàppale dana kaay ma wax la ñaar ménagère mën naa sarax artiste waaye saraxe woo ko fi mu war a dem rek lay dem li mu war a def rek lay def nga fonk liggéeyam teg ko place jëy naa mais yaa nee na noonu lu mën a toy dëgg la xam nga lu tax dañu jël cër jox mi yaa te coful bés bi fii luy doy amu fi ku yàkkamti demal tëddi dëgg la jël mariage artiste damay doxal ba mu neex te xale yi taxaw yor micro bi tant joxuma leen micro bi duñu ko kon ku yëpp rek nañu nañu def la rek def ko mu baax lii ma yor nag si ci jëy naa jox ma ma ko ëlbatil ma mi yaa gisee sama rakk ji dafa ñëw li ma ne la am nga ñaanu yaay doo torox. dëgg la sa bàyyi la fóotal doo tilim. Babacar. waaw. lii ensemble or la Paris. mi yaa gisee. moo ko jox rakam. Jeyla. mi nga xam ne artistes yi bari na waaye danga ne mi yaa rek laa laa laa taamu. Jeyna. kado baa ni mi yaa jox ko ko. gars yi jël leen photo ana sama rakk sama yi. xale yu nga xam ne ñëw leen. jël leen jël leen toog leen rek ngeen jël. toog leen ku assi moo tax ma naan leen jël leen noonu. lii. non non c'est pas bon xool ñu fii. xaaral xaaral ñu xool leen. journaliste yi jël leen attañu baax xale yu yaru nag. xale yu bari maanaa ñu ngi ñuy toog. wala ñoo xëy di ma bindal dara ñu ngi ñuy toog. dañuy bind de. Babacar dañuy xëy naan ndol. ay ca jox ma. lii coffre la nee na Dieyla waay man de Dieyna rek Dieyla sama doom ji sama nuroo waale nee bii bu la mayee yaayam may ko sa yaay tubaarkàlla yëkkatil ma coffre bi ci kaw coffre bi nag ku ne xam ne fi mu jógee fan la jógee Ami Chanel mu baax mi nga xam ne lu mu indi ci réew mi griffe la dëgg la diggante Amérique ak Canada la koy nga koy dëgg la. indi ko ci biir réew mi te dara ñaaw. déedéet moo ko jox coffre bi jàppal mu ñëw ñaar fukki junni. cent mille. ñeent fukki junni. ñu deux cent mille. juróom benn fukki junni. trois cent mille ci miyaa gisee. quatre cent mille. téeméeri junni. cinq cent mille ci miyaa gisee. six cent mille. six cent mille ci miyaa gisee. 700000 700000 ci borom lay laaj. 800000. 800000 ci doom ji teral ndeyam. et eh, waa mbedd mi est-ce que yéen a ngi dégg. wooy. waa mbedd mi est-ce que yéen a ngi dégg. cool. 900000. 900000. 1 million ci sama waa ji 1 million. lay bakk leen 1 million ci suma waa ji 1 million. asan seex 1 million ci suma waa ji 1 million. lay bakk leen Babacar arrêtez leen Thank you so much, Super Allah na ray baayam batay naanam aja saway yaayam Allah na sa baay ñu ngi ni jël jot na fi gudd gudd na ci muru say baayam Allah na ngay du mooy sa baay ci ne ngay ñu ne ta ko ko ko jaay dina jaay sama yëf la du ma sa xaar ceeb te du ma sa may sama yëf la dina yàlla dina jaay sama yëf dina jaay ak yi loola yàlla dogal mooy sama yëf dina jaay ak yi mooy sama yëf loola yàlla dogal mooy sama yëf loolu la yàlla dogal kuy doon liggéey nga la wàcce borom tool gi ci baagi bi ci sa